dañ dañ fee dañ dañ fee dëkk dem ndakaaru topp liggéey bi bàyyi tool yi waaw te doole day jeex te boo toppee foofu nag ak sa doole ba sa doole jeex boo ñëwatee fii dootoo mën yooyu waaw foofu tamit da sonn da sonn. léegi yow yaa ngi dëkkoon à 300 mètres. voilà. Lagi fofu ville la woon si yow. Mhm. léegi bi nga jógee fofu ñëw fi ñaata at la ak lan nga fi yëg bi nga ñëwee fi mm, ñaata at la ngi jox def na fa ñetti at def na fa ñetti at doro doro doro ñi door ci ñu kër gi. différence fi nga jóge won mhm. dem fële. après nga jógewaat fofu ñëwaat fi lan mo waral lolu lolu dama gis ba waaw foofu ak fii bokkut parce que foofu boo ko seetloo ñoom duñ liggéey ay dégg te boo buggee dem bugg a def ak ñoom noonu du du du neex quoi parce que ab doo doole yemut ñooñu mën nañoo dunde noonu yow mënoo dund loolu mbéy nga xam foo nga ñëw jege tool yi toog toog ak njaboot yi di béy ñuy dund kon jaboot lu am solo si yow la. solo. léegi yow nga nga nga bàyyi woon fële. Mhm. fële ak fii ñaati meetar la sorewul matul téeméeri mètre. non waaye dund bi du benn. léegi sa kër gi nga amoon foofu danga ko jaay ñëw dëkk fii wala ana sa kër googu. non kër gaa nga fa jaayu ma ko. waaw kër gaa nga fa jaayu ma ko bu ma bu ma gisee ku ko bëgg nag ma jaay ko ko. parce que bàyyi ko noonu te dëkkoo ci it loolu zéro lay doon rek jaay ko ñëw moom fii liggéey ci moo gën. kon léegi da ngaa décider ñëw dëkk fii si àll bi. Mhm. kër yi moo ne ne kon kon am na différence diggante fii ak fële. Mhm. am na am na coppeeku. mais xalaatuloo nga delluwaat foofu jamono. parce que boko ko seetloo ni fatik ne mo Fatick ci wa parce que bo xolé li joggé fatik ba Ndofane lepp dañ ka lotiser wa ba ni ci bir all bi ni yeb dañ ka lotiser fi lu mu yag yag yag ñu yalla maye guddu fan bok fatik day ñew wa parce que am li ñuy waja tabax fi xawma école lay doon xaw lan mhm. mais xam nga bu dee école bu yàggee yëpp dañ koy dañ koy dañ koy latiser euh, maam koor euh, ren war nga am ñaata mbaam man moom mënaguma wax wax talu dund dañ koo bees kay ba pare ma door a am ñaata lay am ak ñu mu demee daal ndax am nga loo programme ci mbay mi ren loo bëgg a def yow kan man man kay su ma gisoon leneen kay loo gën kii bi mbay bi kon ma bàyyi mbay bi jàpp ci loolu. waaye gisoo ko. non non gisaguma ko. est-ce que loolu dina yomb gis lu gën mbay mi. lu gis loolu loolu nag xanaa rek ñu jéem rek ba yàlla ñëw lu moo def rek ñu jàpp ne noonu la ñaar fukki at ak ñeent génnewuloo fii. déedéet génn sa xel dinay nekk si bëgg fi génn léeg-léeg. léeg-léeg sama xel nekk ci wante du ma mën a dem. lu tax. ah dama jàpp ne ba balaa ngay dem nga xam li nga